asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla moo dogal ñun ay njabootu maam Maodo lañu ku ñu wax ne ne moom lañuy topp ku maam Maodo dañ lay nax gëmuñu ku dul maam Maodo alhamdulilah nag moom c'est un savant dinaa kay wax nit ñi kan le savant montre la lune l'idiot regarde son wa moom yonent bi la ñu wax sa maam bu ñu toogee kon yow bu ñuy fi ut dara yéen ñaar a ngi nii ñaari fadlu ma am wa anna al fadla bi yadillaahi yutihi man yasha soob na yàlla mu jël seen maam def ko mu gën lépp huwa sirru sirrullaahi sirrul wujudihi bihi urifa arrahmanu wa huwa wasilu sirrul wusuli mahabbatu rasuli li ñu bëggul te moom la il a donné la solution n'en déplaise aux gens maam Maodo wax na araka tarumu maal wa jaa wa rifa wa ma hakaza ahlul ula dafay wax noonu araka seetlu naa la yow Amath Fall sa tarumu maal mooy sàkku alal wal jaa ak la beauté esthétique rifaa ak daraja mooy li ngay wax léegi nit ñëpp alal moo leen intéressé la beauté esthétique moo leen intéressé daraja moo leen intéressé di nga gis kuy wax bu daanelee nga xam ne daraja tax muy wax daraja rek mooy wax di nga gis kuy wax bu daanelee nga xam ne bëgg koom rek moo tax muy wax te kat biñ ko laajee maam Maodo qu'est-ce la beauté dafa ne inna al jamala jamalul wal adabi wa laysa fi maalin aw jaain wala nasabin kun ibna man chita waaye wa kun fatina la beauté n'est ni esthétique ni corporelle ni vestimentaire ñu ne ko quest la beauté mu ne c'est la noblesse de caractère et la connaissance mu ne araaka taruumu maala wal jaa wal rifaa mu ne ko wa ma hakaza ñu ne ko quelle est la solution mu ne aniibu wa aniibu ila rabbikum wa aslimoo la wala ñu ne ko maa huwa al inaabatu mu ne al inaabatu ila shay hiya arrujuu an diddihi ñu ne ko maa huwa inabatu ila llahi mu ne muxaalafatu mu mu muxaalafatu nashhadashu sama si la yaa ngi nii muxaalafatu nashhadashu nas nafs wa sheytaan wa hawa wa dunia wa shahwa mooy nashhadashu hmm. suñu présence fii c'était tout juste pour gunge suñu sëriñ su baayam moo ñu jàngal ca daara ja suma maam Abdou Boole bi muy dem daf ñu jël ñun ñépp may ñu maam Mansour ñu ñuy donnante ba sànq ci suba xam nga bu baax ne maam Abdou Boli dafa wax Amina maa laaj Malick bi mu nee Amina may ma ndox mu xaw a di diital continuer di soq maa Abdou Boli dafa génn ne ko Amina te soxnam la mu ne ko Amina du yow la Malick fawa dañaan ndox mu ne ko axaj ah, dama bañoon mu focc moo tax ma continuer di soq mu ne ko doxal fase naa la maam Alaaji Maalik génn ci biir naka Maalik ma ne ko Abdoulaye wax ni mu ne ko si dugal nga toog loo wax nit ñi ne ci dañ ko war a def koo xam ne lu ko yàlla wax def na ko lu mu wax nit ñi dañ ko war a def ñii lañu am te suñu biir kat fa laa bokk depuis mille huit cent quatre-vingt-quinze maa nga fa toog 1895 ba léegi maa nga Tiwaawan toog wallaahi tallaahi Maxtaar Kunta ak Lamin Kunta seen yaay ñooy suma rakku maam alhamdulilah duma wax lu réer fii duma fi doxanteem duma fi maram taale waaye ñii mooy suñuy kilifa ci anam yëpp surtout moom bëri bu lu amam lu bëri laal suuf mbaaxuk sëriñ ñu ngi koy xamee ci mbonuk bi yàlla xam na ne mu wallaahi ñaari star lañu am ca biir kër ga bu xalifa bi ñëwoon su man ndijaay la moom baayam ki xam na ko yaayam Aminta Seck bi ko jur ak Iba Seck ñoo bokk ndey ak baay Aminta Seck moo ko jur Iba Seck moo jur Yaasin Seck waaye yàlla moo dogal ne kii kenn xamagu ko ci kanam lañ koy xam yàlla bu lor tàbbi maalaji malik dafa ne nuda maana bu dóorun nayraatun mes compagnons avec qui je bois du café sont des stars nuda maana suma wéy naanandooy buduurun ay biddéew lañ nayiraatun moom mu ngi bokk ci nasru taahir sallallahu wa sallam wa ayna rahma seydna cheikh mooy jawza yi seydna aboubacar mooy yaddul zeywaay maam cheikhu omar moo bokk ci dabaraan si la famille si a une star actuellement c'est maam Abdou Mé N'en déplaise aux gens, c'est lui la star. mën nañ ko développer ci anam yu bëri allah la daf ko incarné allah ismu zaat la waaye allah bu dara teguwul yàlla allah bu lu ñu man lu ñu mën a téye amérique dañ koy incarné qul huwa wa maa yaxlamu huwa illaa huwa wa huwa huwa allahu allahu allah la benn alif bi alfizaat la beneen laam bi laamu ilmi la beneen laam bi laamu iraadi la beneen haa bi haawu xudra la xudratul ilaahi subhaanallah bu maam Maodo mosul kenn mosul ni mu xamee yàlla néew ñu ko xamee yàlla bu ñu lay sàbbal ci alamul arwaax subhanallah lañ lay wax wax lu fiq sax dañ ci d'accord ne dëgg dëgg dëgg dëgg subhanallah nit bu waree toog waree taxaw ci fiq waree taxaw mu toog boo koy sàbbal danga naan subhaanallah mu xam ne dafa war a jóg bu waree rukkoo rukkoowu lañ ko naan subhaanallahu bu fekkente ne dafa war a sujjóot subhaanallah bu fekkee dafa taxaw ñu waroon toog dañ ko naan subhaanallahi ñu ngi nuyu ñëpp dañu ñëw dimbale ci sëriñ bi ci loolu yal na yàlla dolli sutura fa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid nañu delloowaat mbir yi ca yàlla nañ ko delloowaat ca yàlla nañ ko delloowaat ca yàlla ma alaaji Malik li mu xeex yëpp bakkan la boo ko déglee wa asbahu aleykum jox nañu al riyaaj wa asbahu aleykum al maaj les parures la donné mooy li ngay boo mooy riyaaj maaj mooy maakulaat yi lekkal jox na la ko yaa ngi dégg jox la nga naan dee na nag ragal atabnuuna maa laa taskunuun mu laaj la ko wa tajmauna maa laa taakuluun wa takaasubtum xata zurtum almaqabir wa taamaytum kama tasaamamtum an il ibiri wa zawajir defal ndànk wa antumu abnaau sabil vous êtes des fils de chemin elle doit être votre préoccupation majeure fatlubu xayra zaat asalaamaaleykum